بحر لا إله إلا الله محمد جماله الإله ببحر لا إله إلا الله في الأذى وتلباء محمد مثاله ما ورد فيما مدى وأبدا لن يرد درجة المختار عند ال ابتلاء درجات الرسل إن ابن عبد الله فاق كل من أعلى أو يخليه خالق الزمن ليس يسوق أحد في كونه نبينا أحمد للكون من نور أحمد إلى هنا قلق كل منير في البراء يا فانخلق أحمدنا المختار صلى الله وجعت لله الغالي حياتي وجادني بالصفر والآيات نبينا خاد إليه الله جمال لا إله إلا الله نبينا إليه الله جمال لا إله إلا الله نبينا خال إليه الله جمال لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax te di leen baalu xaq di leen baal xaq tey ñaan yàlla mu def ñu ay jullit xaqan te def ñu ay murit saadix te jàppale ñu ngërëmul borom Touba ginnaaw nuyoo bi ak ziar bi. ñoo ngi dellu di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir sunu borom yàggal ko fi lool te wànde ko wér ak mboolem jëwriñ yi nga xamante si nii ñoo koy jàppale ci liggéey bi buñ ca tuddee Serigne Amdi Modou Mbedd mu yóbbaale mboolem jëwriñ yëpp ginnaaw ñaan yi nag ñoo ngi fas yéenee jël sunu kàddu ci diggalal Serigne Bassirou Abdoul Khadir mu wàcc ci Serigne Sidi Makhtar Sylla ñëw ci suñ jëmm yi ngir ñu fas yéene koo jotal mbokki taaliba yi naam sax na ko sëriñ bu waxee danañ lottu lool ci jàllale ko waaye lu ci jub rek ñu xam ni Serigne bi la lépp lu ci dëgg ñu xam ni it sunu matadi la. muy mel ni lii sëriñ Mame Mor Mbaye wax sànq ci ay kàddoom mooy kii nga xamante ni moom la. sëriñ bi yabal mu ànd ak mbokki taalibe yi mu àndal yëpp muy sëriñ Sidi Maxtaar Silla sëñ Maam moom dafa wax ci ay kàddoom ne sëriñ Bass Abdou Khadre moo ko bëggal boppam loolu it di lu wér loo xamante si nii mbooleem ku jege sëriñ bas wala mbooleem ku jege sëriñ Sidi Maxtaar Silla xam nga loolu ndax li def loolu mooy sëriñ Maxtaar Silla mii dafa am fu mu bokkee yoon yi muy waa Bakol te bokk boobu mu ci bokk demul fenn di ko wane lépp daf koo jaay jëndee ko liggéeyal Serigne Touba kon loolu yi bu amee moo waral Serigne Bass Abdoul Khadir def ko nii mu ko def kon nag mbokki taalibe yi nga xamante si nii ñoo taxawal lii Serigne Bass yebal fi jëm ji war nañoo santaat bu baax a baax a baax te di leen xamal ni Serigne Bass Abdoul Khadir sant na bu baax a baax a baax tey bëgg na bu baax a baax a baax ci mboolem waa daayira bi ak lii nga xamante si nii moom lañ taxawal mu wax ci ay kàddoom ne moom ci jëmmi boppam moo amoon pas-pas ak yéene teew fii ci mbokki taalibe yi ànd ak ñoom liggéey bi waaye mu mel ni poroxaan gi ak inauguration bii nga xamante si nii moom lañ war a inauguré fee nga xamante si nii mooy université bi te xar-xar yooyee ca la nekk ba moo waral teewul fii waaye Serigne Sidi mii nga xamante ni moom la yabal ak mbokki taalibe yi àndal yëpp mate na ko sëkk. Serigne bi mu ngi soññewaat bu baax a baax a baax ci fii nga xamante ni fii la mbokki taalibe yi jaar muy ci Serigne bi. dinañ ci yaatal tuuti rek comme que temps bi dafa xaw a xat ñu soññee ci tuuti ci diggante Serigne bi ak ñun taalibe yi. ngir ñu gën a mën a nàmmaat suñuy pas-pas jëmale ko ci sëriñ bi ndax sëriñ bi dafa mës a toog ak sëriñ Xamsa du Jaxate di waxtaan ak moom ci tukki géej gi ak guddi yooyu nga xamante si nii moom la defoon fii ci Ndakaaru bi mu koy nettali sëriñ Xamsa du Jaxate ba ne ko Xamsatu mu ne ko Mbàkke mu ne ko néeg boobu li ma dugaloon de na ko xat na xat goo xamante si nii waruñu woon a xalaat sax di ci dugal nit ne ko xamsatu mu ne ko mbàkkee mu ne ko néeg boobu de biñ ma ciy dugal xajuma ca sax dañ ma doon buux di ma buux ba tëj bunt ba ci sama kaw ne ko xamsatu mu ne ko mbàkkee mu ne ko néeg boobu de ba ma fa duggee tànk ba ma njëkk a teg yëg naa ni ci ab ñaw-ñaw laa ko teg waaye sañu maa raf sañu maa dellu ginnaaw ndax loolu laa jaayante woon ak sama borom moo tax dama ko cee teg rab googee daa sar ci sama tànk bi ba génn ne ko xamsatu mu ne ko mbàkke mu ne ko loolu yi nag seen jëmm yi képp a tax ma doon ko def sëriñ maxtaar sill dafa mës a toog ci wetu sëriñ bi dafa mës a toog ci wetu sëriñ bi sëriñ bi mel ni da doon tàngal kafe sëriñ maxtaar toog ba yàgg gis ne li sëriñ bi tegkat mi ngi bax mu di ko teggi bi mu ko teggee mu tàng lool mu daal di wiccax loxoom sëriñ bi ne ko saf ñaw digal le ko digal ko mooy jàpp ko dara nee na mu jël dara jàpp ko ko bi mu ko wàccee sëriñ bi ne ko maxtaar mu ne ko màkk mu ne ko de sawara day ku dul seen waay ji ñemewu ko ne ko foofee ca Gabon ba ma fa newee bisu lakk yi tubaab yi dañ ko doon aaye dañ ko doon ay ayeloo ne ko maxtaar mu ne ko màkk mu ko am na ko siiw ku dëkk fii ci Sénégal xam naa turoo ba mu ayee dafa ñëw ba ci man ne ma sëriñ bi damaa bax damaa bëgg nga dox sama diggante ak saw ak sawaraw ëllëg sëriñ bi ne ko dox naa sa diggante ak sa sawar ak ëllëg ne ko maxtaar mu ne ko mbàkki mu ne ko da koo wóoluwul waaye bu ma ne woon sawar a woowee sax du ci lakk moo tax dañ koo lakk ba mu ba mu ñor xom mu ñu sànni ji ko ne ko maxtaar mu ne ko mbàkki mu ne waaye cëy seen waa ji ba mu ayee mbooleem luñ daan tàngal benn dañ koo tàngal ba ba ba muy ñett ngir jàpp ne liy faagaagal ñenn ñi man faagaagaloolu ne ko maxtaar mu ne ko mbàkke ne ko tàngal ba mu mel ni ak sooy ñu jël ma dugal ma ci bàyyi ma ca bàyyi ma ca bàyyi ma ca bañ dem ba jàpp ni bu doon lu war a ñor la fi ne war naa seey ne ko maxtaar mu ne ko mbàkke mu ne ko biñ ne kulbét kubéer googee dañ maa fekk muy julli ne ko maxtaar mu ne ko mbàkke mu ne ko ba fi mu ne nii may wax ak yow ab sedd toppee na ma boo topp na ma boo xamante si nii ca foofee laa ko te loolu yi lépp suñ jëmm yi képp taxoon sëriñ bi di ko def ci bato bi euh, biñ koy booleeg nag woowee sëriñ bi dafa am naar bu bokk ci waa alawi yu yi da ko daf ko mësalaat ne ko ndax bi la nag wi jub see amoo dara loo yëg ci ak tiit sëriñ bi ne ko man de may jaamu yàlla boo xamante si ni lu ci samam xel lu dul yàlla ma al loolu mooy huwa alladi lam ara xayruhu wala arahu fi sayin hadawana wala waaye sëriñ bi sax dafa weesu foofu dem na boo xam sax xawaatir yi askanta fii ri daaka samay xalaat samay xalaat man ahmad al xadim moom la yàlla lëkkale ak ngërëmal yàlla ya gën a mànk kon kookee moom weesu na foofu sëriñ xamsatu jaxate sëriñ bi daf ko mës mu ñëw fekk sëriñ bi ci melo woo xamante nii jàpp na ne waru caa fekk sëriñ bi mu dëpp sëriñ bi ne ko noonu naa kooku xamsatoo agsi mu agsi nar a toog ci wetu nday càmmoñ bi mu ne ko doxal nii te ñëw ci wetu nday joor mu toog ne tekk sëriñ bi ne tekk ba yàgg ne ko xamsatu mu ne ko mbàkke mu ne ko ku amee puutar te ñemewul àll bi day seet dànn bu mën a jam mu jébbal ko ay puutar ndax dafa tekk ba yàgg ne ko xamsatu mu ne ko mbàkke mu ne ko yéen ñi ma jébbaloon seen i puutar day sooyu leen ndax dugg naa àll bi mbooleem rab bu fi amoon njariñ rëbb naa ko togg ko ba yàq ko indil leen lenn doom nga ci des mooy ngeen ngeen raxasu ba mën a jëfandiku ci rëbb bi sëñ xam sa daan ko mbàkke daan daane ko mbàkke ñun dey taq gi yàllaa ñu ko bindee ba tax na mun noo set mu bëggoon nga sarax nu yërëm ba nun mën a mel jëfandiku ci rëbb bi mu ne ko noonu la soobi seen borom ne ko xamsatu mu ne ko mbàkke mu ne ko loolu sax daa taxutoon moo waral dafay gaar ne ko Seydina Jibril alayhi salaam dafay ñëw léegi ma bëggoon laa xamal ne lu weesu tey boo ko fi gisatee ziar si ma moo fi indi waaye du lenn ndigal lu may lu may indi sil ndax li des sama diggante ak saa borom saa borom seppi na ko si ba mu set wecc ba bu ci gisoon lu toll ni zarra dana dana dana ruy ba mel ni kawar guñ guñ def ci ab taal ne ko xamsatu mu ne ko mbàkke mu ne ko li li weesu tey bokkaale gi saa borom gën a bañ mooy tudd ma di tudd keneen mbaa du ko def sëñ xamsatu ne ko mbàkke fasuñu ko yéene sëriñ bi dem ba mel ne daa am lu muy bëgg a wax daal di jël kaala gi taf ko ca ca ca gémmiñ ga ne ko xamsatu mu ne ko mbàkke mu ne ko li des saa borom daa namul mu feeñ fii waaye ba booba fi may daanele mooy sëriñ Mbaye Sarr dafa am bis mu wax sëriñ bi wax joojee mu ko daan wax ne ko yàlla Serigne bi ne ko Babacar Sarr topp sil fii ma wan la lu ma mës wan kenn wax la lu ma mës a wax kenn may la lu ma mës a may kenn ne ko Babacar Sarr yëkkatil der bi muy Serigne bi der bi mu toogoon am pax nekk fa mu ne ko mbay saar mu ne ko mbàkke mu ne ko dugalal sa loxo mu dugal mu ne ko loo daj mu ne ko daj naa fi aw ban mu ne ko génneel mu génne mu ne ko mbay saar ban bii moom la sunu borom tële woon aadama maami aadama seen maam ne ko lii moo ci desoon fii laa ko dencoon ne ko Babacar Sarr bàyyil mu dellu ci pax mi ndax géeju penku gi ak bu sow gi yëpp ñu ngi yëngu te boo yeexee ñu fekk si fii ne ko mbay saar mu ne ko mbàkke mu ne ko juruma kenn kenn juruma wax ju yéeme juruma kenn kenn juruma ne ko bu ëllëg yow mal xiyaamee ñii ñuy tudd di ma tudd may naa la ngay seen baay loolu la wax sëñ Bay Saar kon nag nañ xam ne ku ñuy tudd tudd sëriñ bi nañ jàpp ni doomi sëñ Bay Saar la ñu ngi tuubaat bu baax tey jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fa yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey